après wala ma après damay jox sëñ Saliou euh, jox ki fi toogal. Euh, nee sa bopp oui bien sûr. mën ko nekk Benno Bokk Yaakaar nga nekk ancien ministre. nekk parlementaire nekk l'homme du 23 juin ànd ak Macky Sall. semi ko fu ne xeex ak moom fu ne. mais est-ce que tey euh, tànn jot mérité woo tey Macky Sall ñëw ne yow yaay candidat Benno Bokk Yaakaar. lu mën a nekk la de. waaye léegi la moo tax yow. kenn surprise surprise bi nga dem na am. oui mais la moo tax yow tey. vous vous réclamez pas de de de de de de cet parce que vous avez contribué pour que Benno Bokk Yaakaar am trois juin nekk nga ministre nga jël loolu yëpp tey moom muy tànn mu mel ni ñi dégg ñu ne ay candidats lañ mooy waa APR uniquement yow en tant que un allié qui a toujours été là. mais Macky tànnagul. waaw mais mais. est-ce que auditionné nañ ko est-ce que déglu nañ Cheikh Omar waaw déggoo nañ dem na gis dama ne fii xam nga fi am mm. am say journaliste am say journaux am say site ñu naan diw la diw la war a tànn diw ak diw la te Macky ba sooy dox dara man la njëkk a recevoir ci candidat yi lu tax mm. mardi lundi lañu daje ñun bennoo yëpp trois cent chefs de parti plus de cent soixante dix interventions de dix-sept heures à une heure du matin ku ne am deux minutes di wax bu yàgg na ñuy wax rek ku ne di wax man kenn amul ñaar amul ñett maa jël parole bi ñoo joxee peut-être j'étais à la centième position yooyu ma président mu ne oui ñëpp di ma xool ma ne li ma liggéey ci benn comme ni ko waxee li ma daj ci défense régime bii ak ci défendre la yow bu dee am na kenn ko def fii ci salle bi nañ yëkkati loxoom mais c'est meilleur défenseur meilleur défenseur de la République li ma xeex bañ taal sama kër li ma daj ci ay saaga ma continuer xeex rek plateau yi may xeex bañ suspendre ma bu na kenn ci leader yi bokk bennoo ku mas ku la mas a xeexal li ma xeex na jog toog na jóg wax ko kenn yëngatuwul ma ne ko léegi nag suma parti seet na ba xam ni leader am moo mën ci Sénégal actuellement ci biir bennoo fii ñi tog yëpp yépp amul kenn ku mën a tax ne maa mën El Hadj bu amee na yëkkati loxoom kenn yëkkatiwul loxoom ma ne li ma daj ci défense régime bi bu amee am na ko ci daj na ko wax kon boog suma parti nee na comme na ngay dem et je suis le meilleur man la suma parti tànn pour mu ne candidat à la présidentielle de la république da nga déggoo ma de candidat comme président de la république ma ne président suma parti man la gën a bëgg ne yow yow Macky Sall yaay chef de l' état mais suma parti leader ma gën a bëgg ni yow ku nekk sa leader gën a bëgg ne kenn beneen leader yow si kay suma parti dem bokk APR waa APR yow lañu gën a bëgg yow dematuloo suma parti jàppale woon la depuis 2012. Hmm. léegi suma parti dafa jot mu samp leader mi nga xam ni fi réew mi toll nii ko am fulla ku am fit ku am xam-xam ku def ministre exécutif législatif député dix ans avocat depuis trente quatre ans kooku am na expérience des trois pouvoirs. vous avez les expériences pour trois pouvoirs yi xam ne mooy l'état la la séparation des pouvoirs les trois pouvoirs yëpp laa def amul kenn kenn ci candidat yi ku les trois pouvoirs ku du man kon ñoom ñëpp maa leen mën. xam nga wax sa bopp. sa base politique léegi ma ne Macky Sall bi muy jël réew base politique am. Fatick mën na mën na joxe réew. mais Fatick mën na sa base. non damay wax rek. waaw mais au moins sama base Abdoulaye Wade bi jël pouvoir fu doon base am. waaw am na base Abdoulaye Wade fu amoon base. Ah. Abdoulaye Abdou Diouf fu ñu amoon base. waaw ah, mais. Ah, <laughs> Saalum Baye waaye man man laay dëgg ça m'intéresse beaucoup sa programme. kon bu ma dog nañ dem. yow sa coxor gi doo ko bàyyi. non non du loolu. c'est que aussi. man man sa base électorale nee na problème d'accord mais. Euh, dama ni base électorale mhm. lo élection locale la. localement man national la comme Ablaye Wade waaye dafa doon base politique am Macky Sall bi mu génnee démissionné de la mairie de Fatick dafa dem def tour bi Sénégal boobu benn mairie la yore woon amul benn député. d'accord may ma noonu dama yeggali. Mhm. kenn du ma ñàkkal fayda boo bëgg nga déglu ma foofu c'est important pour montrer que je suis le meilleur candidat te j'ai vu des gens ñu naan diw moo ne candidat diw diw diw te diw ñoo ñëpp ma mën leen ñàkk leen dégg monsieur le ministre. ñu ngi wax ñëpp ñàkk leen déglu honorable député nekk l'homme du 23 juin toj assemblée. université moo toj ko ñoom ñëpp nekk seen leader tant qu'ils sont j'étais leur leader ñu ne ma wooyee Lénine waaye ma diriger leen université diriger la grande grève diriger le mouvement étudiant diriger Jaraaf de Dakar. yore association jeune xam jeunesse bi li bëgg xam étudiants yi li ñu bëgg xam lan mooy gouvernement xam lan mooy assemblée nationale honorable député xam lan mooy maître a Hadji avocat ma taxaw wala yore réew mi mu yëpp et ba pare rek fi ñu toll nii comme je l'ai dit le candidat de la sécurité. Mhm. dama ni ku lappi lappi ñu rëq sa ndigg ku taal ñu taal la ci magasin yi nga xam ni. sécurité bi il faut développer sécurité bi moo ma ñor. voilà fi toll nii. yambar mënul yore Sénégal déggoo ma de kuy yoxi yoxi di layam layam mënul yore Sénégal dañuy xam ni président fawul réew mi dañ ko teg ci yoon ku fi ñëw di def loolu noonu état bi dina jël toutes ses responsabilités. duñ la bàyyi duñ la bàyyi. ngay dugg état bi war na la diriger ëllëg. ok ñëpp ku tëdd di nga nalaw. banques yi duñ ko toj 17 banque lañ toj bii passé. toj Auchan yi station yi ba ci Shell waxuma total de station yëpp sa dañu ne yàq rek sax ci rek loolu la il faut un de poigne un leader charismatique quelqu'un de courageux. Ça veut dire quelqu'un de courageux. Ça que le président de la République Macky Sall. si il est courageux moo tax mu jàpp ñu bëri ñu naan jàpp na 500 personnes. waaw mais c'est ana ana ana numéro 2 Pastef. ana numéro 3 ñoom ñu ngi jàpp kon président ragalul. ana numéro 1 Pastef 2 actuellement jàpp nañu ko tey. 55 ah. jours tëj ko këram mënul génn. kon état ragalul. su ñu ne dafa am doole. dégg naa benn jour am délégation. kon le Sénégal n'a pas de problème de sécurité délégation Yewwi ñu ne 25. dañ koy jëli pour mu tabaski normal le 25 ma toog ma tëdd Hilton le 25 ma dégg ñu naan way ñuy wax naan dañ fa demoon di ko seeti may ñu sax ñu gis ko ma ne ah léegi changé nañ bi léegi dañ ñëw koy luqati ji léegi ne may ñu leen sax ñu waxtaan ak waa ji. d'accord donc euh, programme sur la sécurité waaye yéen ah, parce que aussi ñun dañu bëgg a. maa ngi loolu parenthèse la woon loolu moo ñu intéressé. ko léegi ma ñëw sécurité bi nag. pour montrer que li nga koy wax ne am na doole amul doole. et dem na pour loxati ko le 25. non bàyyil vraiment Ousmane Sonko waxal sa programme. voilà maintenant maintenant sur la sécurité. waaw dama ni. président bu bu yambar bëgguñu ko fee fal président bu tooy wala bu ragal soxlawuñu ko. président aussi bu tricher wala bu bëgg a Sénégal ñaar sud ak nord indi ay monnaie locale soxlawuñu ko. da ngay da ngay bëgg Sénégal def ko benn Sénégal président bu jiital benn benn benn région contre benn région duñ ko nangu kon dama bëgg a boole Sénégal rek. d'accord par rapport à la sécurité mooy ku jóg ci région boo mën a jógee. mais rapidement nag. ni da ngay taal dinañ la taal force de défense et de sécurité yi dinañ jox ordre. mais maître loolu tamit vraiment c'est ça ça dérange sax ba léegi loolu nga wax yëpp y a des dispositions du code pénal boo xam day réprimer loolu. waxuma répression de. waaw dama ni la l'effectivité de la répression. oui maître vous voulez être président. quand même yenn discours yi également c'est c'est à bannir. ah non langage non je suis le candidat de la sécurité xoolal. mais sécurité averti ko tamit. nee na un homme averti en vaut deux. dama ni on a on évolue. université Dakar bi ko attaqué dama ni bu doon may président hélicoptère de l'armée laay ñu naaw. bombardé ña fa nekk jënd taal. <laughs> ñu massacré tous les taaleurs. donc li mooy sa programme li mooy sa programme non li mooy sa programme li mooy sa programme may ma. mais c'est dangereux soo nekkee président déglu ma déglu ma déglu leen ko. candidat de la sécurité et du programme mais maître attendez ki damay toog pour yàq sama programme. Ah, mais maître attendez ce que vous êtes en train de dire également. maa ngi xaar programme bàyyi sama candidat mu wax sécurité. dama juñu xamagu leen li ma bëgg a wax yëpp. Ah. ne ne. développement mënul am sans sécurité. je suis le candidat de la sécurité et du progrès. dama bëgg wala ñuy toj di taal ñuy defar dans chaque département déjà danaa installer benn usine bu mag buy absorber ay milliers de jeunes. <laughs> l'emploi des jeunes. ça j'ai discuté avec feu Lucien Fayfer l'inventeur du crédit bail à Saint-Germain-en-Laye këram mu jox ma programme bi discuté ci. comment développer un pays il a été conseiller de Aïdjo à l'époque dans les premières années de l'indépendance. Ah, mais mais pour l'emploi des jeunes vous avez dit que sama programme coopérative bi koy monté moom dañu ko moom lycée FFR bu jógee. ci Aïdjo ñëw conseiller man dawul ay conseil technique pour mon gouvernement. sur la sécurité d'abord sur mon programme. non sur la sécurité pour la doucement dama bëgg képp koo xam da nga jóg pour yàq. amul bale baale zéro ku def ku toj wala ku ooti nañ nañ gat sa gat sa <laughs> wala ñëw leen dee mortel combat wala ku dee si du ma ko nangu sa programme yëpp c'est autour d'un homme alors. mais nee na c'est pas vrai. c'est pas vrai moom la ce que j'ai am quelqu'un boog boo xam ni. ak groupe am dañoo bëgg a taal Sénégal. mais maître est-ce que est-ce que kon pour sauver Sénégal. Mhm. d'abord. des djihadistes qui sont aux alentours Mali. oui ceinture de feu bi ñu wër. ceinture de feu bi ak des coups d'état de nga da nga Niger barki démb. waay da nga Burkina. Mhm. da nga Mali da nga Guinée. Mhm. ak ñi jigéen doon naan ay am ay ay officiers yoo xam ni waxtaan na ak ñoom tak di di kàcc. dañu ngay jëlee général Seck intervenir. le très républicain. ancien sem gars général Seck sa programme yoo tamit nag. ma ci sama programme kon. Ah, waaw dama dul maye dara ci ay tàkk. mais ba léegi concrètement dégguma fi. looy mettre en place pour la sécurité man boole foofu laa lay déggoo mais déggoo ma li ma wax. waaw dama ni la du ma baale dara. donc loolu mooy sa programme. xoolal du man. waa léegi waa léegi jox jox ma ma wax la waaye sur la sécurité la wax. mu ngi ci sécurité bi nee du baale dara dinaa yokk doole policiers yi. oui yokk doole gendarmerie yi. Mhm. jox leen ay instructions fermes ku ngeen fekk muy taal taal leen ko. ah non maître. bu ñu taalee bu ñu taalee taal taal kenn du taal. mais non non ku ngeen fekk muy yàq. rajoxe leen ko. d'accord maître alors. yaa ngi wax waxu usine non mais quand même. yaa ngi wax waxu usine kër. wala taal après ñu bàyyi ñu guerre nga nar a ah, indi leen dama nga nar